su ma déggee ñuy posé waat euh, la problématique des relations Euh, presse pouvoir euh, loolu sax moo gën a tax ma ne ma dinaa invité Doudou Wade je ne lui ai jamais demandé ça je sais que daal bi ngay nekk assemblée nationale man moom am naa chance euh, da nga mos a nekk sama sama xarit mais je sais que euh, les relations avec la presse euh, n'étaient pas des plus des plus faciles boo nekkee ci nguur Euh, lan moo tax ngay am ci ci presse gis-gis boobu euh, c'est-à-dire mu mel ni c'est des dañuy nekk genre adversaire mu mel ni ce sont des gens euh, yuy brouiller seen seen seen horizon politique mu mel ni ce sont des gens yu leen di jéem a jaxase ak askan bi pourquoi nitu nguur yi di am gis-gis boobu ci presse parce que <laughs> même xam nga quand tu poses la question des relations de la presse et de pouvoir ba pare bëgg jël exemple ci man non non pas ci yow. Ah, non non dama bëgg yow. en tant que euh, ancien acteur nga wax ma mais ñi ñuy déglu. Mhm. mën nañu jàpp ne da ngay jàpp ne man ak presse bi la. non non non non mais oui mais tu comprends je comprends mais ceux qui nous écoutent ont besoin d'être informés juste moo tax je reformule la question lan moo tax diggante nguur ak nitu presse. Mhm. lu tax seen ay relation di am conflit mais loolu may mun a ci relation normale la ci ni institution yi doxee. ak ni nga xamee ni bii moom la presse bi dundee si suñu dëkk suma be sa benn mbokku journaliste laaj na ma ko dimanche Babacar Fall un bon garçon euh, avec qui d'ailleurs j'ai eu une émission très très compliquée mais qui a été très très professionnel après l'émission qui a eu après avoir fait son travail de journaliste il a fait son travail de chirurgien que vous connaissez dans les techniques de l'information pour sortir tout ce qui peut être peut ne pas incompris sur ça mais dama ko wax ne c'est pas seulement à partir de Senghor la presse de notre pays comme toutes les presses c'est depuis le gouverneur général hein, de l'AOF le tubaab a eu des, euh, la colonisation a eu des problèmes avec la presse la presse a été au devant des combats pour l'accession de notre pays à l'indépendance de grands journalistes ont mené les combats mais de journalistes aussi ont eu de mener des combats dans le cadre de la solidarité africaine et principalement dans les relations entre nos deux pays. Des journalistes de la radio comme le vieux Ousseynou Seck a servi de bouclier à Senghor contre Sékou Touré. Mais ensuite, Fologo et Bara Diouf ont autour d'un trajet d'avion trouvé des solutions au conflit bi am entre Houphouët et Senghor. Et il y a eu dans le cadre général les différents problèmes effectivement qu'on a avec euh, que le pouvoir a eu avec la presse ensuite Maïmouna la presse de 50 de 1960 n'est pas la presse de 2000 à 2017 hein, et à 2022 les journalistes de talent que nous bien formés et tu les connais par formé et ceux qui aussi à gérer des instances de télévision ici dans je voudrais saluer ici Feu qui ont eu à jouer des rôles extrêmement importants entre la presse et le, pouvoir. Les résultats, euh, c'est pas comme un fleuve tranquille, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, c'est pas un fleuve tranquille. Il y a eu des affrontements. Ah, Wolof. ma ne am na ay affrontements. Mhm. am na ay xeex am na ay daje. mais am na aussi ay lungoo ci presse bi euh, moo indi li am léegi télévision yu bari rajo yi bari le code de la presse tout ça loolu mooy les résultats yi nga xam ne ñun indi nañ ko malgré qu'on s'est il y a eu des épisodes des folies qui ont été faites avec 24 heures chrono il faut il faut les am loolu am na loolu yëpp am na fi mais da ngay jàpp ne presse bi ak pouvoir bi euh, pouvoir bi pouvoir démocratique la war a doon te démocratie mënul am te amul presse bu am xam-xam. presse bu xam yoon presse bu dëggu presse bu ñu dimbali pour mu taxaw pour mën a nekk une entité ou une organisation ou une société am un projet économique loolu am na mais da ngeen di jàng yéen wala leen ku leen jàngal kooku tamit ñu ngi koy saluer di ko ñaanal yàlla maam les Camara fa doon wax naan bu leen di jàngal wax ne dee leen visiter politique yi te bu leen leen fréquenter mooy seen gisante du bari mais ci expérience bi ma compromis sans compromission. Euh, man dégg dégguma mu waxee ko noonu man maa ngi jàpp li mu wax xëy na loolu yow wax na la ko yow mais man li ma dégg mu wax ma ko man wax ko ay journalistes ñu di ko dégg visiter les politiques mais na la fréquentez pas très bien maintenant loolu bi ma ko seetee man te dund ko à partir de 96 97 98 ma ñëw assemblée dund journalistes yi ba fii li ma ci jàpp mooy. comme l'a écrit un grand spécialiste de questions d'information dafa wax ne le mariage est impossible entre les deux mais man j'en ai conclu mais ils sont toujours en concubinage maanaam seet siwu leen ñu fréquenté wu leen ñu di ngeen ñu visiter ñu ngi ngorowoo séyuñu ñëpp defe na nañ tàggoon nañu mais dañuy njaaloo <laughs> parce que dañuy wax guddi ay eh, may mun a man ak yow dañuy wax guddi deux heures du matin trois heures ah oui dinañ wax guddi sax nga nekk ak sa jëkkër ah oui comme dootu comme d'autres da ngeen di jékki-jékki woote à une heure du matin donc lu Sénégal yi yëgul nañu jàpp ne même bu ñu gisantewul ñu ngi ngorowoo di ngorowoo di nëbbatu suñu gisee nag moo dul bari mais 2 janvier wala premier er janvier yenn saa yi la ñuy laaxatu pour gisee donc loolu mooy wone na te ba pare nag mënuloo nekk ci yi di ko xeex boo féete fii di ko xeex te utiwuloo presse dañ ko comprendre ba ñun ñun Ablaye Wade bii créer un journal d'opinion un journal politique Takussan démocrate soppi mais créer hebdomadaire Demain l'Afrique indi rajo soppi parce que xam na ne l'importance ci fi ñu jëm ci politique boo amul communication boo autant communication dañu wax les annonceurs wala les informateurs c'est soixante-quatorze ans mais aujourd'hui boo amul système de communication bi ci war doo dem mais lu mu indi tey lan la indi mooy conflit jël ku nekk am sa rajo am sa waxukaay am sa caméra bopp di def say émission di wax lu la wóorul di sosal di fen di saaga informé loolu mënul jur lu dul situation yi nga xam ne moo am avec la presque